Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf scandale bu mag ma ngay xeeñ ca centre hospitalier universitaire bu Fann réew mi quotidien moo xëyee xibaar bile di wax ci concurrence bi nga xamante ne tegul ci yoon ci secteur médical bi nga xamante ne kon moo xew ca hôpital Fann goge yëf yi nag fa mu soqee ko bokk na ci projet tabax ab clinique privée bi nga xamante ne mu ngi nekk ci périmètre hôpital bi ci boppam tax na ba ñu fay liggéey ci seen wàllu bopp ña ngay ar artu li tax mbir mi am lees waxul ci biir yéene kaay groupe réew mi network bi di ñu xamal ni kon ab cardiologue bi nekkee ca France moom ci wàllu boppam ñu ngi koy tudd ci scandale bi beneen scandale bi ñu njort ci biir ONAS libération yéene kaay di ñu xamal ni kon section de recherche ci boppam daal dinay jël mbir mi parquet bi tamit am na li nga xamante ne sonj na ko gendarme yi ci seen wàllu bopp l'observateur di addu yi tamit ci coowal ONAS goge di xam ne ni jëwriñ ji di Ousmane Diagne am na lu mu ci sonj procureur de la République yéene kaay bi di wala section de recherche ci boppam ñoom ñoo war a ubbi l'enquête yi ci lépp li nga xamante tudd nañ ko ci mbir mi bis bi le jour di ko ci feelu ne mbir mi nag bu yóbboo ñu def ci ndànk ndax dina jafe lool ñu teewlu ministre Cheikh Tidiane Dieye te loolee ngir mu antu faaw rek ñu am autorisation njiitu réew mi ci boppam yéenekaay bi di fàttali ni lu ni mel musoon na fay am muy jurisprudence Farba Senghor bi nga xamante ne ci li ñu caxat-caxate woon yéenekaay di laas ak 24 heures chrono dañu tekki ndombal bi jamono jooje daal di koy teewlu li yëpp moo tax bis bi la jour jàpp ni enquête bi dina am li mu war a yëngal enquête yéene wax ci motion de censure bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar daan na koy déposé nee na lii yëpp bokk na ci ay pexe yi nga xamante ne nguur gi ak waa Benno Bokk Yaakaar ñu ngi koy def jamono ji te ne kon de censure bi nga xamante ne du Mbow ak i ñooñoom daal nañ koy déposé ni ki démb bu fekkente ne antu na mun na yóbbu Sénégal ci situation politique bu doy waar waaye du ñàkk njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dina am ay pexe yi nga xamante ne mën na faa jaar ngir teggi bi leen dëgg sërëxa li am ba am réew mi quotidien mu ngi ñuy xamal ni daal naka lañ ko digle woon député yu benn Bokk Yaakaar yi daal jëfee nañ ko gannaaw nag ba ñu ko jëfee le quotidien yéeni kaay gis ni jamono ji fu ñu toll mooy ci mortel combat dëgg ak ñaareelu pàcc bi yéeni kaay ma jambal jaan bi di dikkaat ci histoire motion de censure ci Sénégal diggante 1962 ba léegi Sud Quotidien du ñu xamal ni léegi nag majorité parlementaire bi kaw jëmale ko ci nguur gi fi nekk ne motion de censure bi jamono ji mu ngi ci loxol njiital assemblée nationale suñu naataangoy yokk ci ne yëfi nag bu ñu jàpp ni dina yomb ndax bu ñu ko fàttalee ci histoire Sénégal ba léegi li ñu fi jote dugal yépp ni ay motion de censure benn képp moo ci jàll dina jàllam déet le témoin yéene kay dafa jàpp ni motion de censure bi mooy coup politique bu mujj bi nga xamante ne Benno Bokk Yaakaar daf ko fas yéene def ñi ngànk nguur gi jamono ji lii bu anto les échos yéene kay Ousmane Sonko du def lu dul jébbal démission am ak bu gouvernement am ci boppam gouvernement bi bëggoon tas conseil économique social et environnemental ak au conseil des collectivités territoriales te projet de loi bi assemblée nationale mujj ko gantal Vox Populi di ñu yëgal ni Bassirou Diomaye fay daal dina leen koy nangul waaye njiitu réew mi teg na ci ni gannaaw li mu mbëbatoon mooy fexe ba jëflanteeg li nga xamante ne moom la diggee woon askan wi ci campagne électorale bi waaye tamit gën a yaxanal li nga xamante ne moom mooy kopparu réew mi taxaw te daf ci fas yéene dem ba jeex dem ba jeex gi nag bokk na ci yegg ba ci tas assemblée nationale ci boppam waaye Walf Quotidien gis na ni lii daal bëri na ay risque ngir njiitu réew mi ci boppam yéenekaay bi dénk na ci sax kàddu Pape Demba Sy muy xam ne ni kon njeexitali dina métti lool ci fonctionnement assemblée bi ci boppam ak état bu Sénégal Mounirou Sy mel ni ku koy tontu ne yëf yi sax mën na bañ a yegg fa ñu koy foog ndaxte bu loolee anto pouvoiru assemblée nationale yépp ci boppam daanaka président de la république moo koy jël bu ko defee muy doxal ci ay décret ca Chelsea la ñu jëm wax ci tàggat yaram ak mbirum Nicolas Jackson si Camara nga xamante ne bokk na ci ñu koy xelal ay kàdduwam ci biir réew mi sport nee na dikkub Osimhen bi nga xamante ne moom lañ doon laam-laamee mënutoon wàññi benn ci ay qualité attaquant bu Sénégal bi équipe bu Sénégal bi di waajal jonganteem ak Burkina Faso waaye tamit ak Burundi record yéene am na ci xel bu dal ndax nee na di kaatub ak kii di Ismail Jakobs Pape ak Sadio ci boppam